te bi mu koy tabax mu sasoon Serigne Moustapha Bassirou ak mboolem ñi nga xam ne ñu bari ay seex liggéey loo woon leen ne leen kër gi nan ko def kër Serigne Touba mu doon wàccuwaayu bépp taalibe ak bépp jullit boo xamante ni méngoo nga kër gi ñu wàcc Serigne laat Lahat ci boppam liggéeyoon fi benn bâtiment boo xamante ni dafa waxoon ne bâtiment bii de dama ko liggéey fas yéene juróom ñaari bunti sawara yi nga am suñu borom tëjal nu ko ci waaye juróom ñaari juróom àjjana yi nga xam ne moo am suñu borom ubbil nu ko mu doon kër goo xamante nii nag wàccuwaay wu mag doomi Serigne Touba yi fi nekkoon ak mboolem xalifay Serigne Touba yi fi nekkoon daanañ fi dalal ay nit di sàmm kër gi ak wormaam waaye gis nañ ne kër gi Serigne Bassirou Mbackeem Serigne Abdou Khadir mi fi nekk jamono yii yëpp li ko dale ñetti at ci suñu ginnaaw ba léegi mi ngi wax ne kër gi nanu koy warmaal ndax kër la goo xamante ni wàccuwaay wu rëy la am ci diine ji wàccuwaay wu am rëy la am tamit fii ci Touba. mooy kër gi nga xam ne bu sëriñ Touba ñëwaatoon fi lay dal fi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba itam fi lay nekk waaye loolu dafa mel ni nit ñi déggunu ko ci wax déggunu ko ci jëf ba waxtu wu nekk gis nañ ne dañuy dugg ci biir kër gi ak i dàll ñi nga xam ne tamit ñoo fi dëkk am na fi ñoo xamante ni dara doon seeni liggéey lu di di fi kar ay gan yoo xamante ni dañu fiy dikk di fi am ci ñoom ci seen i poos am na fi ñoo xamante ni sax la fi gën a indi mooy di jël portable jàmbur yi ak dàlli jàmbur yi ak loo xamante ni nit ñi ngi koy indaal loolu nag wuute na lool ak kër gi nga xam ne moo di kër Serigne Touba te am na fi ñoo xamante ni daanaka defuñu fi dara dañuy ñëw ci kër gi rek ngir wut lu nu am te kër gi nag dem nan ba kër gi daanaka politiciens yeeg meeting ñi gis ngeen sëriñ Bassirou Serigne Abdou Khadir barki démb sànniwaat na fi kàddu yoo xamante ni ñi nga xam ne dañu fee dikkoon te kër gi doon wàccu waay wu rëy ñu dem ba ñoom di fi tàccu ak di fi fi ne Ele tem uma boca no final. kër gi kat jàng alxuraan ak xasida ak salaatu ala ak bernde ak dalal fi kilifay diine yi moo doon wàcc waaye kër gi moo tax kër gi nan ko delloowaat njukkal delloowaat Serigne Touba warmaan li nga xam ne moo di wetu jumaa ji tamit xam ngeen ne Serigne Saliou ak muxaddimaatul xidma waxoon nañ ne bu fi kenn defati am njaay wala nga fi wecceeku wecce woo xamante ni da cee jublu mu manqué gis ngeen ne kër gi nga xam ne sax am na fi ñoo xamante ni daanaka garage lan ko xaw a def foofu nga xam ne ci wetu kër Serigne Touba gi la garage lan ko la foo xamante Touba la demunu ba di fa jaay ay ndékki ak añ la ñuy jaay ci wetu buntu kër ga loolu nag ku nekk xam na ne du wàccuwaayu sëriñ bi gis ngeen ne moto yi nga xam ne dañ fi aw am na fi ñoo xam ne dañuy supporter ay jigéen ci wetu jigéen jumaa ji loolu nag lu ñaaw la loo xamante ni safinatul amaan dana ci wax ak yeneen ñi nga xam ne ñoo ëpp kàddu waaye lii daal am na lu muy xew ci dëkk bi te méngoowut ak dëkk bi méngoowut ak war may sëriñ sëriñ Muntaxa bi mu toogee nee na nanu delloo sëriñ Touba war ma nanu xam nu ñuy nekk ci dëkk bi rawatina taalibe yi nga jumaa ji ak kër gi ñu tuddee Serigne Touba moo gën a yaayoo war ma mbokk yi daal kër gi mooy kër gi nga xam ne nii rek la ni ñu bare bare dee seen xalaat ak seen wàccuwaay di ko def loolu nag ñaaw na lool toujours nag sunu kilifa yi di àddu ba sëriñ Basirum sëriñ Abdou Khadir dégg ngeen àddu bi mu wax addu te naka jekk loolu la fi daan addu mooy kër gi ba ne fi dugg ki dàll di paccax paccax ba ca biir di dugg ba ca biir foo xamante ni jàng alxuraan ak xasida ak warmaal ko ci sa kàddu boo dikkee wàcce sa kàddu loolu moo fi waroon a am waaye ku ci nekk xam na ne wàccuwaay woowu ñu ngi koy wàcc summi war ma jooju te war ma jooju ko ku ko summi li ñuy wax ne deretu mbagg du mooy kenn deretu bokk du mooy kenn lu dul ka nga xam ne moo ko jëfoon waaye daal lii ab laabire la ak ak ab laabire ak ab soññe boo xamante ni dana tax ñu joxaat Serigne Touba wàcc waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp danañ fi dellu siwaat ngir yeneeni reportage ndax ñun ñi kat ñi nga xam ne dañuy wax ñu néew ci ciy bi ñuy waxi tamit li ñuy wax ñu néew la waxal kon bu ko defee incha allah rabbi dinañ fexe ba kër gi ñu delluwaat wàcc wàccuwaay ak warma ñu koy joxe gis ngeen kër gi dugg bi ak génn bi te boo laajee nit ne ko looy wut ci kër gi danaa damaa dikk rek nga xam ne amu fi benn wàccuwaay amu fi benn ma rawatina ñi nga xam ne dañuy jël gani sëñ Tuubaa yi fii ñëw ñu leen fii dalal ñuy garma ñu fii warmaal ñuy jël seeni bagage wala ñuy jël seeni te kër gii kat Sëriñ Saaliwu mi nga xam ne moo fi mujj ci doomi Sëriñ Tuubaa yi la mu fi doon def mooy gan Sëriñ Tuubaa ak warma ak ku fi méngoo rek la fi daan dalal waaye bu ñu demee ba ñii di fi dugg te duggin woo xamante ni kii moo tax ni sëriñ Bassirou Mbacke mi nga xam ne moo yor na ci te sant na ne ñëpp addu ci ban wormaal kër gi ndax wàccuwaay wu rëy la am. moom ko ko defee ndax xam na fi bokk. moo tax mu yóbbaale leen waaye bu fi ñëwati ëllëg na ko bàyyi xel bu jërë ngeen xamante ni ka fi nekkoon sëñ Touba di ko liggéeyal dafa waxoon ne juróom-ñetti bunti àjjana yi am moom laa bëgg yàlla ubbil ko mboolem taalibe Serigne Touba yi waaye juróom-ñetti bun juróom-ñaari bunti sawara yi am laa bëgg ñu tëjal ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo di taalib kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kër nag foo xamante ni sa teraanga ak sa war ma dafaa nekk sa yaakaar nekk fa war ngaa warmaal dëkk ba rawatina kër sañ Touba ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah